salaamaaleykum mbokk yi ànd ñun ci seen euh, portail Baol Média ñu ànd ak yéen ci déclaration boo xam ne ki koy def jamono bi mooy euh, Saliou jon dañu ànd ñu déglandoo ko. asalaamaaleykum euh, man la Saliou Dione dëkk Touba di citoyen sénégalais bu suivre actualité bi ci dëgg rek ñor ma nag bëgg a baaxee xalaat ñi nga xam ne ñooy famille. Euh, Adji Sarr mi nga xam ne moom problème ak Ousmane Sonko wala boog moom la état udal problème ak Ousmane Sonko kon audio bi maa ngi jagleel mbokki Adji Sarr euh, di leen wax ni seen taxawaay euh, rafet na ndax dëgg moo leen ñor ci niñ waxee ba léegi témoignage yi ñu def yëpp waral na ni Adji Sarr moom léppam ay la ak i njuumte donc ak dëng la waaye lii nga xam ne ak Sonko. dañ ko ci dugal waaye ñoom li war mooy taxaw leeral mooy suñu doom doonte dëng na doonte jubul doonte eh, liñ ko defloo ay complot la ab xaalis la ak ger la ay tappale la waaye du tax ñu bàyyi suñu doom ndax suñu deret la li tax duñu bàyyi suñu doom ndax suñu deret la mooy eh, mënuñu ko faxas ci benn fànn ba mbokk gi dañ donc dañ koy dimbali waaye li koy dimbalee mooy duñu ànd ak moom ci nafeq duñu ànd ak moom ci ay tappale waaye nañ ko dimbali ci aar ko ci aar ko mooy génn ko ci loxoy état nañu taxaw wax ak état ñu ko wóoluwul ngeen ci suñu doom ci wér gi yaramam wóoluwul ngeen ci suñu doom ci ger gi ngeen continuer di ko def ak waxloo ak di ko manipuler waaye tamit wóoluwul ngeen suñu doom ndax wéet na ca soxla na ay mbokkam kon jox leen ñu suñu doom nañ jël ay responsabilité xam ni ayda du mooy aji lu bon bon lu mu mën di mel seen mbokk la seenu xeet la nañ ko dimbalee lenn mooy jël ko sang ba mu set trace ba mu set boot seen doom rogante ko jéem ko jubbanti te bañ ko bàyyi ci loxoy état bi nga xam ne doo koy manipuler ngir di liquider benn adversaire politique wu Macky Sall donc yaakaar naa ne loolu su amee euh, dina dimbali Adja dina dimbali sénégalais yi dina dimbali justice ca it ëllëg seen histoire dina raconté ne ñoom kat ba Sénégal naree dëng ba na Sénégal weng jël nañ seen ay responsabilité téye seen mbokk waaye it ànd ak dëgg ànd ak dëgg mooy fësal li complot la ci ñoom ànduñ tey ànduñ ci ëllëg maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax cay euh, rafetlu seen taxawaay di leen wax ne sax leen ci dëgg bi foofu ngeen nekk foofu la